الشرك تيجان عمدتي وهو شيخي وعمدتي 11e édition laylatul katmiya bi Seyda Mama Amidia ak ay demam ci Baye di amal at bu jot ren ñu jàpp ko vendredi 23 août 2024 fii ci jardin public bu Rufisque yemoo ak 18 safara muy doon ci ndigalu xalifa général de la Fayda Tidianiya Cheikh Mouhamadul Mahi Cheikh Ibrahima Niass Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Ibrahima Niass le représentant di xalif à Dakar ak mbooleem njabootu Maolana Cheikh al Islam Alhaji Ibrahima Niass Baye nii la programme bi tëddee 9h lañ koy door ak njàngum alxuraanul karim ñaanal réew mi yëpp. 19 heures ginnaaw bu nu wasifa ba julli timis ba noppi def mise en place bi 22 heures ci kar si tàmbali ànd ci ak euh, Baba Gadj Pape Kébé groupe Baye Mbaye Thioub euh, Cheikh Baye mbay bi tey Atijani Soxna Khady Diaw euh, Mahmoud Niass Samba Zakir docteur Abdourahim Dia Pape Dame Gadj ak Idi bu zéro heure jotee ñu def allocution wu parrain yi ana ñan ñooy parrain wu reen yi Cheikh Mamadou bu Cheikh Ibrahima Niass Al Oustaz Ahmed Ba Cheikh Daouda Ba ak Seyda Roqaya Ndaw bu une heure matin jotee ñu fas yéene waxtaanee jaar-jaar ak dundu maam Alxaaji Abdoulaye Niass radiallahu taala anhu mi parrain wu permanent wu Katmiya bi anakan moo koy waxtaanee sëtam bii di maam Alxaaji Muntaqa Cheikh Ibrahima Niass deux heures jàpp six heures du matin gàmmu gi tàmbali anakan moo koy amal borom xam-xam bu mag bii di al oustaz Cheikh Aboubacar Ba at ci temu Jawaahirul Maani ak salatul fatiha kon programme baa ngi noonu bu ko kenn wuutee di onzième édition laylatul katmiya bi sayda mama amidia ak ay doomam ci Baye di amal at bu jot ren ñu jàpp ko vendredi 23 août 2024 fii ci jardin public bu Rufisque yamoo ak 18 safar di guddik Cheikh Ahmad Tidiane Chérif radiallahu taala anhu ngir yeneen leeral defal 78 123 75 55 wala 77 459 11 77